mais liggéey nañu liggéey boo xam ne xale yi pour feeñal Sénégal suñu dëkk bu ndaw bii si biir àdduna bi bi lay tàccuwaat leen leen. ñu leen di encouragé bu baax. dëgg la def nga ci. rajo waaw jéego bu dee. mais Youssouf moso bi ah ci.